wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli jent bi sallallahu alayhi wa sallam sant di sëriñ yaakaar teeg ëllëg cheikhuna cheikh ahmad bamba xaadim rasul waaye jaaral ko suñu buntu ba nag maam cheikh anta borom daaru salaam ak gaawaan ñu ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar ñaanal cheikh amadul muntaqa mu yàgg fi lool di ànd ak wér di ko ñaanal sëriñ abou baraka moom cheikh amadul mamoun ak mboolem jabaruk sëriñ gaawaan gétaay bii nag saa yu egsee ci waxtu wi daal liggéeyalee borom subhanahu wa taala ba boromam gërëm ko yebal ko mu war a ci réew mi bis boobee ñu ko doon ganalee taalibeem ba rakkam ja jàmbaaram ja maam Cheikh Anta doon ko ganalee fii ci Daaru Salaam ku ne xam ne ne bis boobu moo dellu siwaat sëriñ bi nag jox ndigal mboolem taalibe yi ak xarit yi soppee dëkkandoo yi ñu setal dëkk bi comme nañ ko daan defee buub ko radu ko tuuri ko ngir teeroo ko gani sëriñ Tuubaa yi ren nag ñu jàpp ko ajjuma le 2 euh, juin incha allah fii ci Daaru Salaam sëriñ bi di ci woo ñëpp nag. nag li mu wax moo di ab taalibe bu ko ngërëmtee rek na jàpp ci bale ak root te maam Cheikh Ibrahima Fall ci loolu la jàppoon bu doonte ne sax yaa ngi nekk ci kërug sëriñ te te yéene wuñ la sax ngërëm la jàppal ci root ak bale wallahi da ngay am ngërëmal yàlla loole nag lañu ñu sëñ aboo yéene ba boole ñoo jëmm yi nga xam ne mu seeni waajur lañ ñu yéene leen ngërëmal sëriñ Touba la seen maam amoon ci sëriñ Touba. tey jii nag ñu ñëw fi doon ay taalibe rek doon ñoo xam ne maam yi ñoo gore woon bàyyi seen suuf bàyyi seen lañ amoon wëlbatiku seeti sëriñ Touba ba fañ ko gise seetal gii nga xam ne fas yéene nañ koo seetal Daaru Salaam nañ ci am pastif bu baax muy góor muy jigéen daayira yi ñu ngi ciy njëkk a woo maam Cheikh Ibra waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ndax lu waay dugg rek ci liggéeyal sëriñ Touba nanga njëkk nanga nga leen njëkkee teg ci soxna Isa ahlu kafe di woo ah, sëñ loo Abdou Lo say ah, Fawzayni waaye nag képp ku mën a doon ci rek ci dëkk bi woo nañ la ba gede woo nañ la. gisee nag suñu jotaay tey bi comme ni ko ni ñuy jiitu ni ñu ko waxee rek ñu jëg bis bu màgg boo xamante ni mooy bisu màggalub Daaru Salaam. te ku wax màggalu daaru salaam nag ñu xam ne daaru salaam moom mooy dëkk bi nga xamante ni moom la Serigne Touba njëkk a sanc kaw suuf di dëkk bu màgg màgg bu tedd boo xamante ni màggal gi ñu fi def mooy màggal gi mag si màggal yi Serigne Touba fekk ko digle ko kon nag ñu am ndigalu Serigne Abo bu màggal gi di ñëw ngir ñu teral gan yi ñu seetal dëkk bi kon nag loolu moo tax ñu jël suñuy kàddu di woote ginnaaw bu ñu woowee daayira ba pare ñu ne ñuy woo nga xamante ni ñu yem si administration comme na ñu xam ne dëkk bi dañ ko bokk ak waa administration bi loolu la ñu ngi siy jiital ministre de l'environnement bi nga xamante ni moom moo yor lu jëm si wàllu set si réew mi moom lañ siy jiital mu wàcc si nag ba ñi nga xamante ni euh, dañ ko décentraliser muy mairie yi ñaari mairie yi nga xam ne ñooñu seq muy mairie bu Touba ak mairie bu Mbacké ñoom tamit ñu ngi leen si wow di leen niñ niñ si daan jàppee ñu leen di ñaan ñuy jàpp si lu ko raw te xam ne li ñu def kat ñoom lañ koy defal euh, buñ ñu jógee foofu tamit ñuy waa waa UCG UCG ñoom ñëpp tamit xam nañ ni wax dëgg yàlla ñi ngi def liggéey bu am solo si dëkk bi ñu suñuy partenaire sax la ñu ñoom bu leen woo bu leen woo bu leen woowul sax dañuy ñëw ngir jàpp si liggéey bi kon nag nañ ko daan defee rek ñu ngi ñaan ñu defee lu ko lu ko raw xam naa incha allah rabbi dinañ fa dem ngir def démarche yooyu ak ñoom euh, beneen bi mooy képp koo xamante ni nag euh, bon volonté nga te am camion ndax mbale mi buñ balee ba pare tamit dañuy soxla ay camion yoo xamante ni ñoo koy jël di ko tuuri ji bu dul loolu dañ fi yàgg sa dëkk bi mën naa set waaye mbalit mi dafay des sa bu fi desee nag dañu indiwaat ay coono moo tax képp koo xamante ni yor nga camion bu mën a tuuri mbalit bu bul sàkk bul boo déggee suñu woote bi rek bul xaar ñu le bu ñu ñëw si yow boo ñu indee sa camion boo si defee gasoil baax na boo si def incha allahu rabbi dinañ jaayante def si gasoil ngir mën a tuuri mbalit mi loolu nag ñu ngi si jiital Serigne Galas Mbacke mi nga xamante ni mu Serigne Modou Rokhaya moom mu nga xamante ni at mu jot daanaka moom mooy suñu premier partenaire si côté boobu daanaka lu jëm si mbalit mi daanaka lu si ëpp ëpp moo koy def ñu ngi ko siy jiital Serigne Omar Badiane tamit wax dëgg yàlla mu at mu jot daan na si jàpp ak ñëpp ñi nga xamante ni yor nañ ay camion rek ñu ngi leen siy woow waa Touba sa kanam ñoom tamit daaw defal nañ fi defal nañu liggéey bu am solo liggéey bu am solo si dëkk bi ndax nañu ay ay gradeur ay pelle mécanique ak ay ay benn yoo xamante ni wax dëgg yàlla daaw lépp loo xamante ni euh, euh, ay fuyaam ay taataa la sëkk nañ si yu bëree bëri ñoom tamit wax ñu ngi leen si woo ngir ñu xam ne liggéey bi tamit ñoom am nañ si wàll kon daal mi ngi noonu ku ku ko dégg nga xam ne woote bi bu egsee si yow rek bu egsee sa nopp rek nga xam ne yow yaa ko moom loo si mën a jàppee ndax bis bi ni ñu ko waxee rek Daaru moom lu fi waaye def nga xam ne sa bopp nga ko defal ndax dëkk la boo xamante ni dëkk bu sell la Serigne Mountakha ni mu koy tuddee rek ñu xam ne dëkk boo xamante ni euh, dëkk la boo xam ne Serigne Touba fonkoon na ko lool kon nag ñu ngi woo ñëpp képp koo xamante ni woote bi egsi na sa nopp rek nga xamante ni bu ñu egsee si yow ak buñ egsiwut si yow rek woote baa ngi noonu nga ñëw jàpp si wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñuy def nañ ko daan defee rek muy fas yéene def mbalem daaru salaam muy màggaluk daaru salaam gi ñu di ko waajal di ko def le deux tombeek ajjuma bii di ñëw bu dellu see ñuy ñaan nag képp koo xamante ni mbootaay nga ci dëkk bi nga teew ñuy wax ci kàddu soxna Ndey Jóob mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ fii ci mbalem daaru salaam mi ñuy njëkke ci moom woote bi njëkke ci moom woote bi diwoo soxna maam Anta Ja ci mbale mi diwoo woo mbooleem mbootaay goo xamante ni mu ngi ci daaru salaam mbootaayu ummi mbootaayu soxna may Gueye mbootaayu soxna Ndey Assu Kebe mbootaayu soxna Nogay Jéey mbootaayu ndey Badiane ak mbooleem képp koo xamante ni yor nga groupement fii ci diggante Mbàkke ak Daaru Salaam ñi ngi la ciy woo ñi ngi woo waa Gaawaan gépp di woo waa Daaru Marnaan gépp di woo waa Mbàkke gépp ñëpp nañ ñëw ci mbale mi te xam ne mbale mi ñun suñ ko dee bale ñun jigéen ñi Daaru Salaam ñun lañuy baleel kon nag bu kenn toog képp koo xamante ni jigéen nga nekk ci Daaru Salaam gi su àjjuma na nga teel a génn ñëw ca waañ wi ndax waañ wi kat yenn saa yi dañ ciy am ay jafe-jafe jafe-jafe yi mooy dañuy toog ci seeni kër ba mu naaj ñu soog a ñëw te nit ñi boo leen di liggéeyloo war nga leen a jox lu ñu xéewloo te xéewlu yi dafa war di teel kon nag képp koo xamante ni yor nga mbootaay wala yor nga benn mbooloo rek fas yéene bu huit na ñëpp tase ci waañ wi ñu mën a defaral ñi nga xam ne ñooy bale ñu defaral leen xéewal yi ñu teel a mën a xéewlu waaye an at mu ne dañuy am ay jafe-jafe ci yéex gee génn nañu soññante suñ biir nag te xam ne suñu góor ñu baax ñii kat dañ ñuy jàppale rek waaye ñun ñoo waroon di togg xéewal yi wëlbatiku di bale ndax bale moom ñëpp xam nañ ne jigéen la baaxoo comme jigéen la baaxoo nag suñu suñu mbokk góor ñi ñëw ne ñëw ba seeni daayira ba ni kër ba seeni association lépp takku ñëw nekk ci terrain bi du ñu baleel la ñuy xéewloo ñu war a teel a jóg ñëw ànd ak nekk ci waañ wi fas leen ko yéenee teel a taajal waaye da nga daan gis ñuy bale bay wàcc ca mbale ma dem di ñibbite xéewli xéewal yi du pare sama soññee daal foofu la jëm képp koo xam ne mbootaay nga ci diggante daaru salaam ak mbàkke daaru marnaan sañc sañc sañ saaliw yi ñu ngi woo ñëpp te ñëpp teel a ñëw 8 heures na leen fekk ñu teel a taal teel a yàq xéewal yi teel leen koo jox jàpp ci mbale bi nag mbootaay bu ci ne nanga ko daan defe nanga ko ni defe teel a laaj la ngay laaj ca say mbootaay ñu teel koo indi ñu préparer xéewal yi ñi ngi ciy soññ képp koo xamante ni yor nga mbootaay rek nga laaj li nga war a laaj ñu indi ko dajale ko ndax moom la ñuy préparer xéewal yi xeebuñu dara nag xeebuñu kenn nit cëfuñu kenn ne ñëpp ñëw te kuy ñëw tamit na nga seet loo àndal ndax ndaje murit moom da ngay làmb poos kon nag nañ làmb poos yi te indi ko te xéewal yi gën a bari lool macha allah jërë ngeen jëf. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu leen di siyaare bu baax leen jot li kàddu yu nuyoo Serigne Abo Mbacke Mouhamed xalifa Daaru Salaam muy am mbégte kontaan bu baax ah xanaa day kàddu soññi rek ndax xam na ne fàttewu leen ko ndax gis na chaque ane taxawaay bi ngeen taxaw ci mbalem Daaru Salaam mi kon nag def ngeen ko muy seen yëf. xëy na nag fàttali moom doomu aadama baaxu koo fàttali sëñ bi nee daal mi ngi woo ñëpp képp koo xam ne Daaru Salaam nga dëkk wala lu war Daaru Salaam wala fépp taalibe bu sëñ Tuubaa a nekk moo xam kuréel gu mën a doon daayira association ñu mën a tudd daal mi leen di woo ci bis boobu nga xam ne amul lu moom muy bi sëriñ Tuubaa jógee ci tukki bi ñëw fii Daaru woo ñëpp képp koo xam ne daal taalibe sëñ Tuubaa nga ak foo man a bokk ci yoonu murid yi woo nañ ñëpp góor jigéen mag ndaw bayul kenn ñu ñëw ajuma la deux incha allah fii ci Daaru Salaam ñëw bay dëkk ba mu seet wécc ndax bu gàññi ñëwee fi ñu nekk mën a sell ndax ku xam ne na sell dafa am solo ci doomu aadama boo defee sëñ bi wax ne ci woote bi donte xale yi sax ñu ngi ko lim waaye sëñ bi wax ne mu ngi ciy jiital xalifa général Baye ci kilifa ci euh, ki yor ki jawrinam sëñ Fallou Moudou Aminta bu sëñ Fallou jàllee tamit ki nga xam ne moo yor bi lépp mu sëñ Moustapha Mbar sëñ bi nee mi ngi koy yëgal liggéey bi gis na at yëpp ni ñu ci daa taxawee koo xam ne diggante maam Cheikh Rahim Fall ak Daaru Salaam ndax yëpp ci taarix wax na ne fii la ko sëriñ ci waa gërëmee kon na loolu rek daanaka doy na soññee sëñ bi ne mi ngi ci woo mbokk Baye Fall yëpp benn bi topp mu ne mi ngi woo soxna Assou Mbacké moom soxna dawam sëñ Gaawaan ak sëñ Abdoulahi borom dër bi moom ku ne gis na taxawaayam ku ne gis na ak njàmbaaram moom ne sëñ mi ngi koy fàttali bis bi xam ñoo ko bokk waaye nag fàttali dafa baax bi toppee mu ne mi ngi fàttali soxna am Isa moom sëriñ Mudu Faati Xari sëñ Masamba moom it ku ne gis na taxawaayam ku ne gis na ak jàppam ci ci ci ci liggéeyu yoonu murit yemul ko fenn fépp fépp fu ñu watee liggéey murid rek soxna maam Isa Mbàkke ahlu café ma nga fa sëñ bi nee mi ngi fàttaliwaat sëñ Abdoulaho Madawul Fawsayni moom it mi ngi koy soññi ak mboolem kuréel Madawul Fawsayni gépp ñu ngi koy soññewaat bu kenn des mi ngi soññaat monsieur maire Gallo Ba mi nga xam ne moo yilif dëkk bi Mbàkke Bawol commune ko wër lépp ah ku ne xam ne liggéey bi dañuy soxla ay jumtuwaay lu mel ne camion yi lu mel ne ay brouette lépp lu ñu liggéeyee daal lu jëm ci ton toon yi bi nee na mi ngi koy fàttali ñu ci gën mën a jàppee daaw rek ren nañ jàppaat lu ko raw ndax bis bi moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am beneen bi topp mooy waa Touba ca kanam ñu leen de fàttaliwaat bu baax ñoom seen jàpp ku ne xam nañ seen taxawaay ci oto yi ñu fi indi ci wàllum <coughs> camion yeeg ci yëpp <coughs> sëñ bi nee ko fàttali bu baax baax ah di fàttaliwaat tamit Abdou Lahad Ka maire Touba mooy mi ngi koy fàttali bu baax ku ne xam ne fàttali ko sax mais soññee moom wàññiwul dara sëñ bi nee na jàppoon daaw rek ren na ko def bu ko raw ah, Abdou Mbacke Ndaw ah, honorable député moom sëñ bi nee mi ngi koy wo ku gis na ne at yi passé yëpp taxawaay bi am ci mbare mi nag sëñ moo fi defar jumaa ji sëñ bi nee moom mi ngi ko sant bu baax gis na taxawaayam ci Daaru Salaam di ñaanal mu yëpp ñaanal ko lépp mu yéene liggéey Sëriñ Tuubaa mu def ko sëñ bi nee am na mbégte am na contentement ñi ñaan ci daree Sëriñ Tuubaa li Sëriñ Tuubaa doon wax wala Sëriñ Gaawaan wax ci magal Daaru Salaam gi ku fi ñëw am xayra maraam xayra bu ci kenn génn sëñ bi nee am na mbégte am na kontaante mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn góor jigéen mag ndaw ah, ñu commencé ko bismillahi rahmaani rahim eggul alhamdulillahi rabbil alamin sëñ bi nee na bàyyiwul kenn ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp woote bi nag mu war a nekk incha allah le deux ñu dajeeg bisub àjjuma ñu war a setal dëkk bi ngir waajale ko màggal gi sëriñ bi woo na ñëpp dégg nañ daayira yi dégg nañ seen bopp groupement jigéen ñi dégg nañ seen bopp waaye administration dégg nañ seen bopp ku ci nekk am nga ci aw laaj ci xam ne sa wàllu bopp la kenn ku ne nag sëriñ bi mi ngi la ciy soññ di la ci wootal la ciy xaar waaye di soññ ñëpp itam ñoo xam ne liggéey la boo xam ne sëriñ bi bu soñoon bala ñoo jullit tisbaar lépp mat kon képp koo xam ni am nga yéene jàpp ci liggéey bi soo jullee soo ba noppi rek ngaa jawal si daaru salaam ndax xam ne li ñu woote leen rek la mooy naset luy mbalit na fi jug loolu nag yaakaar naa ku ci jëm xam nga la nga war a yóbbaale bu dee bale danañ ko soxla bu dee raadu daañu ko soxla ay buret daañu ko soxla waaye bu ñu ko dajalee ba noppi lu koy tonni yénni ko dëkk bi daañu ko soxla kon yooyu ñu ngi soñ ñëpp waaye na ji ci ndigalul Serigne Mbacke Madina moom Serigne Modou Rokhaya nga xam ne moo jiite commission bi soxna Ndey Diop moom Serigne Cheikh Anta nga xam ne ci jàmbaar yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi ci la bokk ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal Serigne bi yàlla na fi yàgg te wér waaye liggéey bi mu sant yàlla nañ ci am ndam